Amen. Amen asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu euh, bokki taalibe yëpp ak bokki jullit yi ak mboolem fu ab murit ne yaakaar sëñ ak bokki réew mi ak ñëpp ñu ngi am mbégte di nuyu ñëpp euh, jataay bi nag ku ko gis dina xam ne lépp mbégte la ak xéwal ak tawféex ci ay dongo yoo xam ne fas sañu yéene lañuy ñuy jaayanteeg sëñ dëggu ci ñoom ñu fas yéene jëfe ndigalal Cheikh mun Mountakha Mbacké mi fi toogal Serigne yaakaar naa ku ne gis na jataay bi amoon démb ci daaru minan euh, ci ziyaare bu bi nga xamante ni suñu bokk yi isbu tarixi daar xudus am nañ ko sëñ yuusu teew ci ci ndigalu cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké moom itam ci jataay ba mu am kàddu yoo xamante ni yëkkati na ko joxe ko ndigalam loolee nag bi ñu xëyee ñoqiwul léegi nii ci tàkkusaan moo ñu jiite tàkkusaan ginnaaw waxtaan wu am solo woo xamante ni def na ko waaye itam la mu doon feddali mboolem ña fa teew di jëwriñ di ñu topp ci seen ginnaaw xamal nañ ko ne ko li nga bëgg suñu boroom def na ko sëg bëgg rek lañ doon dàkk ndigal lii nga joxe noo ñu ko mën a jëfee ni nga ko bëggee di nga ko amee nu kawee su njot ne ko nag ñu ngi dem gise waxtaan waaye bu ñu dellu seen ndam rek lañ lay indi looloo waral ba ñu jógee fa Euh, sëñ Youssou ak délégation bi mu àndaloon ñu wàcc Daaru Xuddoos ca daare ja fekk fa gaa yi waxtaan ak ñoom ñoom it bu ñu jógee ñu daal di agsiwaat fii ci daare ji ba fii ñu ne ñu ngi toog ci bureau sëñ Youssou mi nga xamante ni mooy jëwriñ daare ji loolu lépp nag ngir dàkk bëggu sëñ bi ak fas yéene aw am pas-pasu wane ne ndigal li mu digle fas nañ ko yéene jëfe joxoñ bi mu bi mu joxoñ fas nañ ci yéene jaar ni mu ko bëggee fas nañ ko yéene defee kem ni mu ko bëggee ndax loolu rek ñu booleeg sëñ Tuubaa bu diglee ñu def lu mu santaane ñu teg ci suñu bakkan ba keroog loolu di sotti kon nag yaakaar naa loolu tawfiix ji ñu koy santee nag muy ndimbalam ak xéewalam tàbbi na ci ba xol yëpp nangu nañ ko kenn ku nekkit buñ la bàyyi woon yow kenn nga jëf ko rawatina bi ñëpp àndee ngir fas yéene jëfe kon nag yaakaar naa loolu mooy jataay bii rek mooy mooy mbégte mi te ñu xam ne ginnaaw bu ñu jógee ci moom la jullee fa saan mu jiite ñu joxe ndigal ne na kuréel bi jàng inna laa maana bi ñu noppee mu ñaanal ñu ñu ñëw ak si jataay bi kon yaakaar naa dinaa jox jëwriñ yi ñu yëkkati kàddu yoo xamante ni li muy firndeel rek mooy wane lañ ko wax ci jataay ba ne fas nañu yéene nañ ko ko waxee teg ci suñu bakkan ak suñu tànk ba mu am ni nga xam ne la ko bëggee te ci ñaan ndimbalam ak tawféexam ak ak jàppaleem ba nim ñu ko digalee ñu defe ko nu kawe ni nga xamante ni la ko ni ko santaane kon auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim barka borom Tuuba kon mooy addu di jëriñ isra Daaru Xuddoos kaddu yi nag lañ si njëkk a tàmbali rek ma alhamdulilahi rabbil alamin ne xam ne ci defe tedd gi sëñ Tuuba sëñ Muntaxa moom la ñu ubbee kàddoom tey ku ne dégg na ni ko sëñ Mouhamadou Lamine waxee sànq rek démb ziar mi nga xam ne def nañ ko mu junj fi junj yu bare bare bare bare yoo xam ne matal sëkk ci wane ne dañu bokk loo xam ne mënuñu ko séddoo loolu it tey mu wéy si loolu wooluñu jox ñu ndigal ndigal lam ñu jox nag weesu lenn rek lu ñu ànd liggéey Sëñ Tuubaa ànd gu sell gu sincère boo xam ne yokk la si yoon wi day day day yokk doole gën a mën a doon bëgg murit yëpp ndax ñëpp ku ne sawaroon nga lu mel nii foofu it lañ seere si moom rek moom lañ si faat faat waxaat nit du weddu boppam te yaakaar naa sorewul démb rek la lañ ko seeral mooy dañoo jaayante moom te jaayante googu jiitu na taxawaay bii mu toog ba mu doon suñ sëñ Tuubaa jiitu na tey xamal ko it ndigal rek dañuy fa yéene defe ndax ay murit lañ te sama taxaatal rek kon sëriñ bi ndigal li muy jox ak lu mu doon it jekk nañ ngir incha allah taxaw si jëfe ko ànd ba liggéey bi nga xam ne moom la bëgg ndigal li nga xam ne moom la santaane ñu fas yéene ko jëmmal ba nii ñu ko waxee rek bu ñëwee indil ko ndam lépp doon ni mu ko bëggee noo xam dana kawe njort murit yëpp zahiran baatinan jërëjëf daw fixa si baak Cheikh Khadim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa ngi ziyaar mbokki bi yëpp ak mbokki jullit yëpp di jotlee kàddu yi cant kaddu kàddu yi cant yi li ko waral mooy moom Cheikh Mouhamadoul taxaw moom la yàlla suñu borom defal loo xam ne jagleeg boppam la waaye jagle googu euh, dafa mel ni yóbbaale na mbébétu ñu baax ñëpp mu sottee ci moom nun ñu am tawféex yi nag mu doonal ñu ci dara euh, am murit moom ku ne xam na ne ñeenti sart yi nga xam ne ci la murit di dox nun ñi ñëpp moom moo ñu atte asidqu fi mahabbati cheikh moom moonu tënk su mam te saalu amrihi xay su lu mu digle nga def lu mu tere nga bàyyi tarkul intiraat salabul ixtiyaar kon ñun defe naa daje nañ ci kàddu yi nga xam ne sëñ Mbàkke wax na ko benn laay démb wéy na tegatu la ko ëllëg tegagu la ko tey rek lii sëñ Muntaxa wax tey nee naa ko dinañ ko jëfe balaa ñuy xalaat dañ koy jëfe ba noppi dogu ci ne waxaale nañu képp ku bokk Hizbut Tarqiyyah ne doo woote mukk ju boole suñu bopp muy jafe ci ñun lu tax du jafe mooy xam nañ ne mooy dooleel lislaam xam nañ ni lislaam soo gisee néew doole gu am wala mu mel ni suñu borom dafay seetaan ñoo xam ne amuñu ngëm ñuy mel ni ñuy sonal julli ñi dara waral lu ko ludul jullit ñi waroon boole seen bopp dox ab diir kenn ku ci ne di xool boppam sa jëmm nag da koy fàtte teg jëmmi Serigne Touba mi nga xamante ne ñun ñii ñëpp dañoo jaayante moom ne ko jébbal nañ la suñu bopp àdduna ak alaaxira loolu soo ko waxee dañ koy dégg waaye soo ko jëfee Serigne bi jàpp ko atte la tey layal la ëllëg loolu kon defe naa moo nu booleeg Serigne bi ñoo ngi sant nag ñëpp mbokki taalibe yi man yàlla dafa dogal bi ñu defee ziar bi. ña ngi ba ngeen yabaloon ñu ñëw fi képp man dafa doonoon loo xamante ne euh, fi saasi la ñu def suñu waxtaan ne hal jazaawul ihsaan ilal lu baax moom lu baax lu gën a baax a koy fay ñu jàppoon ne danañ ca jéem lu baax waaye ndigal nag daa gën lépp faf ñu am ci ndigal ndigal loolu nag fi ñu toll ni nanu xam ne dootuñu tàggoog moom ba bu ñu wuy suñu borom waaw boole nañ ñu ndax noog mbooloo yeneen yi nga xam ne sax boolewuñu nii te ñuy mbooloom lislaam ñoog ñoom ñoo bokk bëgg ñoo bokk bañ rawatina yéen nag dañ ñoo boole waar ndax yéen fii ngeen soqi ko ci coobare sunu borom mu am loo xamante ne yëngu jamono la ak melow doomu aadama ak lu ne jaar na fi waaye loolu lépp li am solo kenn ku ci ne na ko jiiñaat boppam na ko jiiñaat boppam ndax sikk ndax sëñ bi dafa wax ne ñaar rekk mu am euh, in raaytallah fi kulli shay'in wahabaka laahu xayra kulli shay'in mbir mu ne boo ci gisee suñu borom yiw rek nga cee gis mais boo cee gis doomu aadama yow suñu borom da lay rëcc kon loolu kon ñun noo ngi santaat sëriñ bi di di santaat euh, Cheikh Mamadou Mountakha bu wér ci taxawaayam bi di ko ñaanal mu yàgg fi loolu tuwér euh, di sant nag suñu euh, sunu ñu tedd yi tàmbalee ko si Moustapha moom sëñ Mahamadan ku ne xam na ne moom dongo yi rek ko ñor ak xaside yi fépp foo xam ne ñu ngi fay warmal xaside yi di ko fa dundal dinañ ko xam dinañ ko fa miin amul nag beneen bëgg wala beneen jublu kon yàlla dafa dogal moom lii doonoon ak bëggam ñu tase ca sëriñ bi mu fekke ko sëriñ bi jat jataayoo naag moom jataay yu neex tey kon tey jii mët na seere yàlla na ko fi yàlla yàggal moom ak ñi nga xam ne dañuy liggéey ci xaside yi mel ni moom ndax loolu lu am solo la mooy sunu sunu sunu ngànnaay sëñ bi moom nee nañu yéen seen liggéey mooy xaside yi sëñ si Dooman Mbàkke moom jëwriñ la ci Hizbut Tarqiyyah noo àndoon bi ñu dem ci euh, si Cheikh Mamadou Mountakha kon lii daal laa doon dolli ci ay kàddu euh, sëñ euh, sëñ Mbàkke di sant nag bu baax di sant ñëpp di wax nag képp bokk Hizbut Tarqiyyah moom na la wóor ne benn baat rek la amul ñaari baat amul tamit waxtaan woo xam ne dina wuteeg li ma wax sëriñ bi li mu wax lañuy def deesu ci teg baat deesul xool it noo koy doxalee nen lu dul nga feeñal ci sa yéene ci gën koo yéwénal ki ci mën nag ci gën koo yéwenal ak gën a fexe nu muy gën a dëgëree rek kooku daal na xam ne deesu kenn deesu ko fayee lenn lu dul ngërëmal sëñ Tuubaa yàlla buñ ci kenn ëppale jërë ngeen jëf barke borom Tuubaa

أمرنا يا مسلما لخير اهد كرنا لنستجب يا خير سددي فاز سعيد بالقران من بدي نجا بما يديم خير سددي